jërë ngeen jëf fidèle internaute bpactu.com nu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey ji ci xëdu njëkk la ñu fas yéene waxtaanee du leen lu dul kaddu yu oustaz Mame Gor Ndiaye yëkkati woon di ko jëmale ci ki nga xamante ni moom moo di Seydina Limaamu Al Mahdi yoo kaddu yooyee nag nekk na kaddu yu ñaaw ba nga xamante ni ba ci xalifa général des Layènes jotee dafa daal di porter plainte ci saa si ngir ko justice daal di def liggéeyam mbir mi nag d'après ni ko oustaz Mame Gor Ndiaye expliqué ci kanamu takk der yi nee na benn groupe whatsapp la ak ay nit yu bari ci la doon ubbi waxtaan di waxtaan dans le cadre général ba wax lu ni mel d'ailleurs sax moom daal dinay reconnaître les faits waaye cadre général la doon waxtaanee nee na waxtaanewul woon ci famille Laayeen ni Ñaseen ni Murit ni Tijaan waaye cadre général moo waral tegi ji wax ji daal di yegg si fi mu yegg si mi ngi firndeel ni nag ba mu koy wax mille vingt 2021 la woon ci weer bi nga xamante ni ah, ci lañ doon waajal lii nii di appelu laa Laayeen ci la doon waxtaan ba dugg ci lu nu mel waaye mi ngi firndeel tamit ni wax joojee bu génnee rek c'est parce que ñenn ci nit yu nekk ci biir groupe WhatsApp ba ñoom ñoo ko génne daal di koy fësal tardewul benn yoon daal di dul baaraamu tuuma ñaari nit yu nekkoon ci biir groupe boobee kenn ki ñu gën koo xam ci turu Amidou Camara nit ñi di ko woowee Abou Jamil keneen ki di turu Cheikh Tidiane Gueye ñeneen ñi di ko duppee Abu Ibrahim nee na ñoom ñaar ñoo jël audio boobee daal di ciy montage ay foto ba mu rafet dugal ko ci seen site internet yu ñu duppee Daaru Sunna TV ak yoonu Aljana TV nee na nag lu jig njàkk ñoom ñooy ñàkk te takk der yi ni ñuy defee seen liggéey ci moom ginnaaw ba ko xalif bi porté plainte moom tamit noonu la retourné daal di porté waat plainte ñaar ñooñee ngir que justice daal di leen di teg loxo ana lan moo war a tax ñu jël audio boobee tasaare ko Sénégal ak li ko wër ci saa si nag takk der yi daal di nañuy def descente kër ñaari daanaka daal mën nañ ñi dañoo sol seen dàll rek daal di daw ndax xamoon nañ ni takk der yi dinañu teew si ci seen kër googee ñu teg leen loxo kii nii oustaz Mame Gor njaay nag jamono ji ngi waxee ak yéen contrôle judiciaire lañ ko daal di góor ndax wax ji dañ ko pour ne yéene poursuivre comme ni ko xalif day laa yenn waxee donte sax moom li ci gën a jaaxal oustaz Mame Gor Ndiaye ana wax boo xamante ne bañ koo waxee léegi am na at nan nga mën a toogee ba jamono neex rek nga bëgg vidéo boo def ci sa site nga daal di def ab montage bu nu mel dugal ko mu ngi jégalu bu baax a baax di ko jëmale ci xalif bi waaye tamit di ko jëmale ci képp koo xamante ni da nga bëgg Seydina Limaamu almardi yu ndax moom reconnaître na les faits waaye tamit jàpp na ni moom lépp loo xamante ni erreur la ci rek tey ji moom moo ko def ndax bu wax loolu lu nu du génn waaye tamit nag du benn yoon ci kii nii di Amadou Camara ak Cheikh Tidiane Gueye ndax bu waxtaan den am rek ñëpp xam nañ ni groupe whatsapp ku ci nekk da ngay wax te boo waxee dina am ñeneen ñu lay feelu donc am na yeneen audio yu fa nekk te kenn génnewu ko pourquoi ñu daal di génne audio am te tey ji moom bu duggaatoon ci groupe bi daal di koy visiter mën na wàcce yeneen waxtaan yu baree bari yoo xamante ni nit ñi participer nañ ci c'est parce que dañoo bëgg a takkal daram sosol ko ñëpp di ko dégg ci naka sudul noone moo waral ñu daal di jël ba moom dong moom képp daal di koy fësal xarif bi nag moom jamono mer na ba mer yam ndax mënoon a porte parole am wala mu yónni kenn ci taalibeem defu ko ngir wane ni tey ji wax jaam na fu mu ko toll moo waral xalif bi daal di sol dàllam dem porte ji plainte ngir que ñu daal di koy def ci képp koo xamante ni da ngay jël wax bu ñaaw di ko jëmalee ci Seydina Limaamu wala nga koy wax di ko jëmale ci seen tarixa boobee ndax ñoom seen bakkan lañ ci daal di teg ci ak rappel bu gàtt rek kii nii di yaa aw rasul ba mu amalee appel bi passé nit yu bari doon nañ ko duut baaraamu tuuma naan ko li nii di ji famille Laayeen mosuñu leen a dégg ci naka sudul noonu wala famille Laayeen mosuñu leen a dégg ci biir yu ni mel donc yaa Awa Rassoul ba mu desee ba mu defee ab appel bu ni mel ñëpp choqué woon na ñëw ba tax na daal dañoo daal di temporiser wax ji moom sax ba muy répondre mi ngi yëgle ni moom moo tooñ ndaxte famille Laayeen bii nii kenn mosu leen a dut baaraam ci naka sudul noonu mbir mi nag nii la demee ci diggante xalifa général des Laayeen taalibe Laayeen ak oustaz Mame bi moom moo di Amidou Camara ñu koy wax abu Jamil ak Cheikh Tidiane Gueye ñu koy wax abu Ibrahim ñu moom site internet yu ñu duppee Daaru Sunna TV ak yoonu Aljana TV lépp lu ci ñu dinañ ci dellusiwaat jërë ngeen jëf mbokk yi